الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوشي تي في جسان فيدوبي لكي تمحو ما قام به البشر كيف أن الدودة هذه الحشرة جاءت لتأكل ولتمحو كل ما قد قاموا به في تلك الصحيفة حتى لم يتبقى منها إلا اسمه تعالى باسمك اللهم ثم رأينا إذا أن الحلول تأتي من الأرض وتأتي من السماء ولكنها تأتي بعد آخر الكرم وسنواصل مع تلك المحنة الكبرى ومع المضايقات ومع أبي الجهل الذي كان أبا الحكم وكان عمر بن هشام فتحول إلى ذاك الاسم الباقي معه لعنفه لعدم امتلاكه الأخلاق الحميدة فهو لا يرى إلا الحل العجيب فضاعت الحكمة وضاع عمر بن هشام ولم يبقى إلا الجهل بقي تدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي عندك ين بلغي تي جار جاري سنگ بمحمد صلى الله عليه وسلم نيجي نك اغيين بلغي تي مكه ci période boobu ak waxtu woowu ak nekkin woowu nga xam ne jéem koo xatal la jéem koo dëkkale fu mu dëkkul la jéem koo teg lu mu àttanul la waaye nag moom mu nekk di jàngale wone nag ne nii rekk la woon nii rekk la ba yàlla di indee mbiram nii rekk la woon ca aadama ba yegsi ci moom ñi bundu xataal ay yonent di leen xatal di leen teg ay coono nii rekk la ci jamono ju nekk ak lu jamono ja développé développé avancé ko danga gis ñuy xatal ay jullit di leen teg luñ leen warta teg ba ba yàlla nag di indee ay mbiram su ko defee nag loolu yépp mu war ko dund ak ñun gis nañ loolu ci suñ waxtaanu démb ci biñ leen gawe xañ takk seeni biir xañ leen lu gën a tuuti lu nit war a am ni ko yàlla ubbee ci ñaari bunt ubbi ko ci ay nit yoo xam ne seen conscience ñoo leen mayul ñu teg ay nit li muy solution rationnelle waaye itam yàlla indi ko ci ab max buy ñëw maxe lañ bindoon ni yépp mu mel ni itam solution céleste la ak solution terrestre maanaam lu yàlla def ak loxoom ak lu yàlla jaarale ci ay nit yu nekk ci kaw suuf ñu def ko mu mel ni kon gannaaw jaaruwaay boobu ak taxawaay boobu ñu ngi ñëwaat tey taxawaat ci beneen taxawaay benn jëmm joo xam ni ku taxaw l'islam pour fatte ko ci ay bakanam ku fatte la ben jëm jo xamne ku iññite la do wax sax ko añaan yem ci yegg na ci iññite ben jëm jo xamne dafa gis ne lepp doole la dafa gis ne lepp daraja la dafa gis ne lépp psychologisme la ay baat yooyu jël di ko sànni dafa gis ne lépp am pexe la en tout cas am na benn arsenal ci ay wax ki jëf ak ki nekkin yoo xam ne jàpp na ne yooyu rek doy na pour passer lépp loo xam ne bëgg nga koo passé jëmm jooju mi ngi tuddoo Omar ibnu Hisham waaye tur wi dana dem ba far ba nga xam ne dootul doon ku amee ab tur ci tur yi ndax jëfam far na turam jëmm jooju ñu ko daan dàkkantere di ko wooyee abal xakam ku ñor ki ku am ki xel ku bari ki pexe sage bi jàppoon nañ ne sage la ba ñu ko daan wooyee le grand sage waaye xolam ak añaanam ak bugg a teg lu dul dëgg impose ko par des voies et des yoo xam ne lépp ruse la pexe mu bon la mu ñaaw dem na ba teg gi xikma ci moom maanaam pexe bu rafet ak jëfin bu rafet ak waxin bu rafet ba dara desatu fa lu mooy abul jahli kon turub boppam ba ak itam pexeem mañ ko xame woon yépp far na ana lan moo ca tegu mooy nit ku réer kuy réeral nit ñi abul jahli abul jahli bi ñuy waxtaanee ci isra wal gisoon nañu na mu ñëwoon rekk taxaw yonent bi alayhi afdal salaatu wasalaam taxawub baa li nga wax su ma dajalee nit ñi danga ko confirmer foog ni am na poñ abul jahli boobu nag toog nañu ci biir daje éefar yi ba mu ne ba mu yàgg mu ne Muhammad mi daal danaa fexe ba teggil leen ko danaa fexe ba jëlee ko fi danaa fexe ba ray ko kon yegg na ci xiiru yegg na ci añaan yegg na ci xeex que léegi nag dana def li ñuy wax assassinat dana rey léegi yegg na nag ci ne léegi mënatu muñ amatul pexe mënatula la teg argument mënatu la dugg ci débat li muy def yépp daal mooy dana rey dana rey danaa boom mu mel ni kon jóge na ci pexe ñëw na ci pexe jóge na ci lële ñëw na cëllale kon dugg si na ci war a boom kon abal xakam boroom pexe mu ñaaw moomu dugg si nag léegi ci ne dafay boom day boom muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofa nag ak pexe moomu nee na damay xaar bam ñëw ci kaaba gi di julli si may yëkkati xeer rekk daldi ko ko teg su ma ko tegalee mu daldi fi jóge e ñu laaj ma li ñuy laaj ku rey rek ne ma kaay nga joxe kaay nga fay kaay nga joxe diya kon pexe moomu la tëral ba pare nag wax ko ñépp di xaar ne bu ëllëgee abul li dana def dana exécuter menace am bi menacé na mu mel ni kon am na lu ñuy wax préméditation tëral na pexe mu ñaaw ba pare nag nee na dana dem pour exécuter ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal di jóg ñëw ci kaaba gi ma ngay julli ma nga daan jublu Jérusalem beytil maqdis ba ñëwee ci kaaba gi ci arroknu shaam yi maanaam foofu nga xam ne moo jëm shaam digganteem ak yaman yi nga xool foofu la daan jublu nga xam ne su fa jubloo dana mën a nekk loo xam ne ma ngay jublu ji beytil maqdis bi mu ñëwee nag mu daldi jublu foofa commencé julli bi mu demee nag ba war yegg ci sujjoot Abu Jahl nag mu nga yenu xeeram wa waaye daal toog ba mu yàgg rekk mu yuuxu sànni xeeram wu fële yuuxu rekk ut si nit ñi eefar yi ah gars dajaal ko naan ko Abu Jahl naka la nga waxoon ana sa menace ba ana la nga promettre woon ana ana ana commencé koo laaj abul jahli daldi ne ay su ngeen gisoon li ma gisoon ay su ngeen xamoon li ma xamoon ñu ne ko lan la mu ne bi ma demee ba koy uti laa gis benn ponkalam giléem loo xam ne musuma gis bu ni mel mu jóg rek rëcc rek ut si ma ubbi gémmiñ ga gémmiñ nga kenn mënu wax lan la ñëw rek bëgguma lekk mu ne talatuma attaque ji talatuma sama bopp dama daldi bàyyi la ma amewoon rek daldi di dëpp daw cey kii moo rëy ay pexe kii moo ay xëram kii moo ay jeber kon pexe na am pexe yàlla fexe am pexe pexem yàlla nag moo ko won ne pexem lu tuuti la pexem bu ñaaw boobu mu teg ci tooñeel pexem bu ñaaw boobu mu teg ci or pexem bu ñaaw boobu mu teg ci def safaan yàlla won na ko ne ko pexe mu mu du jàll mu daldi jël dëpp war a dëkk nettali ko mu mel ni kon yàllaa ngi wone ne diini ji maa koy aaral sama bopp ay jëmm yoo xam ne wóolu nañ seen xel wóolu nañ seen pexe wóolu nañ seen daraja wóolu nañu élément yu bari yoo xam ne daje daje na ci ñoom duñ dëkk di jóg pour utsi diine ji waaye nag suñ ko utsee man yàlla maay ki nga xam ne danaa dox seen digganteeg seen pexe mu bon mu ñaaw moomu ñu utsee diine ji kon yàlla wax na foofu jëf na foofu ci pexe mu bon mu ñaaw mi nga xam ne abul li ñëwoon na jéem koo boomee muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu gis ne jéem a jullit jéem a nit koo xam ne mu ngi liggéeyal dëgg di ko liggéeyal diine foog na boo ci jógee fare ca diine yonent baa ngi koy jàngale di ko teg ci jamono ju teel di wone nag ne duñ ko weesu ba àddina tukki waxtu wu nekk rekk danañ ko jéem mustoona dëñ nag déppi ba am àddina tàmbale ca iblis ak aadam ba ca isa bnu mariama ak ñoñam ñu ko doon jéem a christifié te alquran wax ne déedéet christifié wuñ ko reyuñ ko waaye nag dañ ko niroole ak koo xam ne nirowoon na ko te mooy Juda xam nañu nañ ko nettalee ca téere yu wér ya kon loolu itam dana ñëwaat ci dund yonent bi ca alayhi wasallam pour l'islam nekk la passé présent waaye mu nekk itam la futur jamono di doxaat ba ñuy gisaat jéema a boom nit puisque mi ngi doxal dëgg kon jéem nañoo assassiné Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ut si nañ ko ak ay pexe ci jëmm Abu Jahal jëmm ju ñu xam ju bari ay pexe ju bari kàttan ju bari yu ko wër ci ay élément taxoon na ba mu ne lislaam jëmm la xaaral ma rey jëmm ji yëf yi yonent bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam la xaaral ma jëlee ko fi ba pare nag jël date jël rendez-vous ne xaar leen ma defi ko yàlla indi pexem pexeb dëgg tekki pexem caaxaan kon abu jahal ngi noonu di bind boo xam ne dana des ci ne diine ji ak li koy doxal ak ñi koy doxal duñ dëñ di leen ut si looloo tax Aboubacar rek lañuy gis si plitaar mu tëdd ca lalam uy ji boromam terewut nag ut si nañ ko fu nekk ca yamamata ca xafazatul quran ca ña doon wooteek yonent ca maani zakat ña daan joxe source bi dundal diini ñu ne dootuñ ko joxe waaye Omar dañ ko boom osmaan dañ ko boom Ali dañ koo boom Hassan dañ koo empoisonné rey ko Hussein dañ ko boom kon l'islam leçon boobu ñu wut si woon yonent bi sallallahu alayhi wasallam na di ko gis ba ci suñ jëmm tey jii ñu nekk ci vingt et unième yaa ngi dégg puissance buy jóg pour rayi benn nit ànd doolem yépp di ci jàggati ay réew dégg nañ ko ci Usaama tabun ibnu Laden déggoon nañ ko ci ku mel ni al-Xumayni ca la xewoon ci saxraawu Tabas gis nañu mag ñi baax ñi nekkoon fii ci Sénégal ci wàllu sofiyanke maam kon yooyu yépp day tegal ne ne phase boobu yonent bi taxaw jàngale ko te mooy jëmm jiikat danañ ko fi jëlee ndax buñ ko fi jëlee jële fi lislaam bindëb démb ca aadama ba yegsi ci isa alayhi waaye bindab itam la dalee ca centre bi muy Muhammad sallallahu alayhi wa ba yegsi ci suñ jëmm tey jii duñ dañ mukk di am ay pexe pour boom ab jëmm joo xam ne jàpp nañ ni buñ ko boomee loola taxaw loola arrêté waaye yàlla itam du dañ mukk di leen won ne leen man maay aar diine ji di aar ñi ko taxawee lu ma namm nag pour mu jàll danaa ko jàllale waaye fekk na loola seen pexe réyewu ko waaye yàlla rek moo ca bëgg a jaarale ab message pour bugg nag mu nekk bëre diggante dëgg ak fen bugg mu nekk bëre boo xam ne jullit yi itam buñ dem ba naagu ba defe ne fu ñu yëkkatee rek luxus lay doon loola daanu déedéet léeg-léeg ñu daan ñu gañe leen léeg-léeg ñoom ñu gañe su ko defee nag ci biir gañewante boobu ak wëndeelu boobu ñu gis ne kon diine ji moom itam am na un côté purement rationnel nga door cee teg nag un côté irrationnel ñaar yooyu nag ñëw kolewante am na un coté terrestre am na un côté céleste am na foo xam ne suuf moo ciy jëf jëfab suuf ak nekkin ci kaw suuf am na foo xam ne jëfu asamaan la luy jóge ci yàlla la yàllaa fay ee pour fees àddina mu mel ni mission su màggee rek fokk mu toxu daarul hijra fokk mu gàddaay kon yonent bi sallallahu alayhi wa war naa dugg si ci préparer ëllëg boo xam ne gàddaay lay tudd mu mel ni loolu la ñuy war a jël nag incha allah ci suñu bindab ëllëg bi toppaat jaar-jaar yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ñu ngi leen di jox rendez-vous ëllëg incha allah alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Kossy TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd baay yéenay liggéey Faydu baay bi si ji barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey Faydu baay bi si ji barahama ñu leen di gërëm ñu leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla jox leen